Abass yi ñu ngi leen nañ la noo gisee événement bi tamit si jamono bu nii événement bi xanaa bëgg kontaan rek kontaan si événement bi événement bu mag la parce que euh, sama jagar sama jabar ku mag la ndaw euh, lu mën a wax lu baax rek ay na moom ñëpp xam nañ ko si lu baax xam nañ ko si lu baax rek lañ mën a ku baax la ku yaru ko fonk li tam la c'est c'est naturel c'est c'est loolu rek laa si moom. lu ma gën a neex si Aïda. yarwam ah, baaxaayam ak yarwam moo tax ma fonk ko waay. ma dugg see ma ah, dama kontaan parce que euh, gis naa mu ngi si place am ba léegi ah, mu ngi gën a jóg te ma koy ñaanal ah yàlla sutural ko lu muy def waay si sëyam tamit. Aïda xanaa yaru rek mu taalube rek dafa yaru mu nekk taalube wax dëgg yàlla waaw. ayca ayca jërëjëf ba ñu jógee kaw ñëw ba Sénégal tey événement bi naka nga ko préparé ah yàgg nañ ko préparé nag tey jaraat na ma ko parce que sama doom la. mais dafa natural rek dafa natural Aïda sama doom la wax dëgg yàlla te lu ne loo xam ne dafa nekk si pour événement